asalaamualeykum waa Sénégal asalaamualeykum waa àdduna ñu ngi dellu di nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm tey ñaan yàlla mu def ko ci àdduna bépp di jéggalu encore une ci li ñu leen gëj a defal vidéo analyse ci série yi nga xamante ni si mooy daw di leen wax ni rek ñàkk jot ak liggéey bi téewoon ñu moo waraloon ñu gëjoon def analyse donc tey dañu ñëwoon pour def analyse ci série Mœurs ci épisode bi nga xamante ni si moo mujjee daw avant loolu ñu ngi leen di wax ni créer nañ leen benn groupe whatsapp boo xam ne dinañ mën a commenter ci série yi képp koo xam te ne bëgg na ci bokk rek incha allah mën nañu contacter ci numéro bi incha allah dinañ ko dugal ci groupe boobu. alors bu ñu dellusee ci épisode bi nga xamante ni si moo mujjee daw ci série Mœurs dañ ciy tànn benn point pour débattre ak yéen muy li nga xamante ni moo jot a xew kër monsieur le maire ñu gis ni am na 300000 yu ñu fa jël ñu juñoon ko jànq bi. am na ci ñoo xamante ne si seen xel dem na aussi tamit ci béyti ti moom def na ay fexeem ba indi fa benn sëriñ mu seet génn benn jaaro ni jaaro bi de ki ko moom moo jël xaalis bi te jaaro bi jaaro monsieur le maire la alors que monsieur le maire bi ñuy jël xaalis bi fekk ko fa woon fekkoon na ko mu voyage kon loolu liñ ci mën a jàngate mooy tey bëri na kër yu tas bëri na ay ànd yu yàqu sëriñ moo ko yàq du ma ni sax sëriñ mais ñiy woote sëriñ te fekk duñu ko nga dem ñu seetal la ñu la sa xarit bi daf la bëgg a liggéey sa tante bi tey mi ngi lay liggéey ci suuf wala mi ngi gas di suul sa nàngam mi ngi lay fexeel yow nag boo doon ku gàtt xel gëm lim la wax dangay dem ba tey jii sa xel ki mu jàpp ni moom la sëriñ bi di wax rek dangay xaw a wàññeeku ci moom dootoo demati ci moom à cent pour cent dangay dem ba dangay manqué confiance jëmale ci moom alors mën na am sax ki nga demoon mu seetal la li mu la wax dara amu ci mu yàqu sa diggante yow ak kooku ci zéro te jamono ji ñu toll daf ci bëri lool am na ñoo xamante ne ñu ngi dem ci sëriñ mu leen di seetal lim leen di wax dara amu ci mais yàlla mooy dogal ñuy tàndatu ba wax loo xamante ni si day jige ak yow li ngay dund rek nga ni waajaa ngi nii lu mu la wax nga gëm ko ba su la waxoon tey jii que ni sa propre waajur bi la jur mi ngi lay fexeel da ngay jàpp ni li wax mu am doo ci ànd xel. parce que da nga naan i sëñ bi dafa aay parce que wax na ma lii am na rek kon mu ngi gis lépp ci man te jamono ji moo toll foo xamante ne si nit ñi nit ñi wute xaalis ñoom xooluñu mu leew xooluñu dara na xaalis bi ñëw rek ba taxam na xooluñ sax suñu boroom ci li ñuy def donc bu ñu mënoon a tàqali àdduna bépp pour am xaalis ñoom dinañ ko def moo tax il faut ñu delloo soit suñu xel bàyyi sëriñ yi ñoo xam ne ñoom la ñu jël teg leen ca kaw ba bu ngeen demee lu ñu leen rek lu leen wax rek ngeen gëm loolu parce que bu ñu jàngatee ci action bii rek déjà monsieur le maire bi ñu jël xaalis moom nekku fóot dafa voyagé woon ñu ñëw jaaro bi fenn ñu ni ko xam moom moom moo ko jël te fekk moom mooy boroom jaaro bi kon ku ne xam na ni mën nañ am njort bu rafet que ni monsieur le maire jëlul xaalis bi mais loolu day wane ni rek parfois sëriñ dina seetal wax la loo xamante ni si nii yow da ngay jàpp ni moo am fekk ni amul kon il faut tamit ñu delloo si suñu xel bu baax a baax ci phénomène yi mel noonu parce que dafa bëri yàq alors tey point boobu rek lañ ñu woon dinañ ci débattre ak yéen di leen wax ne tamit numéro bi mu ngi noonu képp ku bëgg commentaire ci bépp série bu mu mën a doon mën nga jël numéro bi ñu dugal la ci groupe bi ñuy waxtaan ci série yi di jël waxtaan yi nga xam te ne ñoo ci ëpp solo xam ne mën na jariñ ñëpp ñu koy jàllale ci YouTube bi incha allah pour ñëpp mën ci jot di leen wax ne bu leen fàttee abonné wu ngir mën di dégluwaat seen commentaire ci kàttanu borom bi donc di leen jox dig daje ci beneen vidéo incha allah